Euh, jërë ngeen jëf mbokki internet 313 digital gannaaw ba ngeen nuyu amaat mbégte contentement dikkaat ak yéen ci seen actu sport dañu koy door rek ak footballkatub Sénégal bi gannaaw rek ba Gana Gueye kon jógee la ca Paris saint Everton kii di Abdou Lahat kon daal dinay débarqué moom aussi tamit rek ngir dem wutali ca këlëgëm gu yees googu moom Abdou Lahat kon ma ngay fas dem foofu la rek ca Allemagne maanaam Bundesliga gannaaw rek ba mu nekki woon ab manqué rek lii di temps de foofu li ci Paris Saint-Germain kon dana daal di finalement rejoindre ñii di RB Leipzig Ah, xabaar bi nag koo xam ni dafa jege loolu ñi di waa Paris Saint-Germain di wéy turu Andrien kon moom moo ko daal di annoncé rek ci ab Twitter mu xamle que ni mi ngi daal di bougé bu baax a baax ci défenseur international sénégalais bi ak ñi di waa RB Leipzig la mu xam ne rek mooy que ni accord total kon daa nay am ci diggante Paris Saint-Germain ak ñi di RB Leipzig ngir rek Abdou Lahat Diallo kon daal di jóge foofu dem ca Allemagne eh, ci ab péré boo xamante ni si ni kon dañuy daal di mën koo jënd ma jugee ci rek wutali ca na coppite am na ci dossier Ahmadou Bamba Dieng ndax kii di Bamba Dieng kon gannaaw ba ñu ko annoncé woon rek day dem foofule ca Lorient daal di nay uh, am changement ci diggante bi ndax kii di Ahmadou Bamba Dieng ña ngi koy tudd rek foofule ca Leeds uh, ci dernier jour yi nga xam ni kon moom moo des rek ci mercato bi la Sénégalais bii di Bamba Dieng dana jóge foofule ca dana jóge foofule ca Marseille gannaaw ba ko annoncé woon foofule ca Lorient moom champion d'Afrique bi dana dem rek daal di signé fële ca Premier League maanaam ci club boobu di Leeds Euh, que le prévu daal di devancer rek kii di Lorient ci waxtu yi nga xam ni kon moom la ñu weesu ndax moom moo daal di fay rek njëg gi nga xam ni moom moo gën a baax ngir daal di jënd attaquant Sénégal boobu euh, kon kii di Lens dana daal di euh, jël kii di attaquant Sénégal bi ndax moom rek moom moo daal di fay njëg gi nga xam ni kon moom moo daal di gën a baax waaye lu ci manti am kon détail yu boobi la transfert kon ba tey mi ngi wéy duñu ump ndax kenn dévoilé gu ko ñu des rek foofu la ci Angleterre wax ci dossier Ismaïla Sarr ndax foofu la ca clubam boobu Sylla daal di nay dellusiwaat rek ngir daal di amalaat ab waxtaan ci footballkatu euh, Sénégal bi gannaaw ba Aston Villa kon daal di décidé woon bàyyi rek bépp waxtaan bu mu amaloon ci diggante ba euh, Sénégal bi di Ismaïla saar ci ay raisons yoo xamante ni si nii euh, dañ ko amoon rek ci diggante ñaari la yooyu club kon Aston Villa daal di nay tourné waat rek ngir li des ci waxtu ci mercato bi kon mu daal di ubbiwaat dossier Ismaïla Sarr boobu ngir rek daal di koy mën jënd balaa mercato bi daal Ivoire ci doyseeb Ismaïla Sarr gannaaw kon ba mu passé woon visite médicale am ngir demoon foofule ca Aston Villa dañoo dakkaloon rek boobule contrat gannaaw bu ay désaccord amee kon ci seen diggante ñaari club yooyu. kii di Aston Villa daal ba tey kon mi ngi wéy rek di wane maanaam ak bëggam ngir signé kii di Ismaïla Sarr ba tax na li des ci mercato bi ci ay heure mu tëj bareetul kii di Aston Villa daal di nay décider rek relancement li nga xam ni kon moom moo di waxtaan ci digganteem ak kii di Ismaïla Sarr ngir rek am accord moom champion d'Afrique bi nag pour rappel maanaam les deux parties maanaam ñaari club yi kon amoon nañ benn accord rek ci du toll ci vingt cinq millions ngir mu daal dem foofu la ci Aston Villa waaye Aston Villa kon dafa décidé woon rek daal di abandonné boobile dossier gannaaw ba ay rek jafe-jafe amee woon ci diggante ñaari yooyu pàcc. ñu bu ma jugee foofu wutali fële ca Espagne dem ca Barça rek daal wax ci football katub africain bi dëkk ca Gabon kon di Aubameyang kon ab déggoo Pierre-Emerick Aubameyang kon ab déggoo daal di nay am ci digganteem ak Chelsea ngir mu jógee foofu rek daal di dama wutali foofu la ca Angleterre waaye su ma jógee foofu damay dellusiwaat rek wax ci sunu gaynde yi ndax sunu gaynde yi kon ñu ngay wéy rek di wane seen mënin la ci bitim réew footballkat bii di wuyoo ci Pape Alassane Gueye daal di nay dugal di nay kon di ñaanco nag di Sadio Mané kon mu ngay wéy rek di dugal ay bitam ndax seen jongante bi ñu amoon ni ki démb daal daal di na jëy dugal juróomeelu biyoom ci saison bi moom Sadio maane muy jaloore joo xam ne rek sunu gaynde ñi ngi wéy di ko def foofu la ca bitim réew kon na jërë ngeen jëf mbokki internet 313 digital lii la ngay indiloon ci seen actu sport di leen jox dig daje ba beneen di leen wax rek ngeen wéy di continuer di abonné di bës ci cloche de notification bi ngir ngeen mën a am suñu vidéo yi ñu fi du